saxaaba bu màgg bu ñuy wax Irbaad ibnu Sariya radiyallahu anhu day nettali ne am na benn bis yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam jiite leen julli suba ba noppi wëlbati ko jàkkaarloog saxaaba yi waar leen waaraate woo xam ne nee seen xol yépp a tiit ca waaraate wa seen rankooñ yi tuuru nee na ko yaa rasulallah dafa mel ne sa waaraate wii day waaraate wu kuy tàggatoo la kon dafa mel ne kon mësuleen a waar waaraate wu mel noonu ñu ne ko kon nag dénk nu mu ne leen maa ngi leen di dénk ragal yàlla maa ngi leen di dénk dégg ak topp ci leen jiite ak kooka nu mu mën a mel bu leen xool jëmm ja moo tax misaal ko ne doonte sax dafa nekk ab jaam waaye moom moo leen jiite te ci lislaam la leen jiite xool leen lam leen jiitee bu leen xool jëmm ji loolu kon am njàngi léegi ci mu rëy bi nga xamee nit ñi dem nañ ba léegi xoolatuñu kiy jiite li muy jiite waaye jëmm ji rek la ñuy xool jëmm ji rek la ñuy xool moom la ñuy jàpp fu mu leen jaarale baax na nu mu leen wax baax na waaye bu fekkente ne jëmm ja xaw naa xeebu ci ñoom ci wàllu askan wala ci wàllu am-am doonte ci dëgg lay woote duñ nangu mu jiite leen ci dëgg googu yonente bi alayhi salaatu wasalaam ne bokk na ci li ma leen dénk nag ngeen di déggal di topp képp ku leen jiite ci lislaam jiite leen ci seen doxiinu àdduna ak lu mu xeebu xeebu ci seenu gis waaye ci dëgg la leen jiite na ngeen ko déggal mu ne kat koo xam ne dund nga fi ba ca kanam dund fi gannaawam danga gis ay wuute yu bari ci diine ji waaye nag bu boobaa na ngeen jàpp ci sama sunna maanaam werson yi day bari ñu ne kii mi ngi ci yoonu diw kii mi ngi ci yoonu diw kii mi ngi ci yoonu diw waaye nag ana yoonu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nag mi nga xam ne moom moo andi lislaam xanaa juñ ko séddoo ba mu jeex te moom di séddu ca dara xanaa aw yoonam ba tey war na fee nekk mu ne nag bu boobaa gëstu leen ba xam man yoon wa ma jaaroon man yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngeen jaar ci yoon wa nga xam ne ñi ma fi wuutu sama gannaaw te nekk ñoo xam ne ñu jubal lañu ñu yàlla jubal lañu yoon woowa itam ca la ñu jaaroon bu ngeen ko xamee nag na ngeen ko matt ca seen dëgg ji gën a sori wala na ko téye fu sori ba nga xam ne sax doo bëgg a wax muy rot maanaam ko loolu da ciy déggaale ne kon bu ca bari ay werante ndax luñ ne la denc ko ca liñ naan roog seen mooy dëgg ba gën a sori na ko kepp foofa te ñaare na boo ko fa dencee boo baree wax rek dana wadd kon nag addu alayha bin nawaajis mu ne na ngeen moytu nag yi nit ñiy sos ci ay mbir ndax kat lépp lu ñu sos ci diine ji loola kat ak cànkute la kon loolu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wattandi ko loon na ko xeet yi lu jiitu mu fii jóge te bañ ko dénk dénkru loolu muy dénkaane bi nga xam ne moom la bàyyee xeet bi yépp ibnu rajab rahimahullah ne sunna boobu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di dénkaane bokkule nag sunna ci niñ koy faral di déggee naan nangam farata la nangam sunna la wooy dégg ñu ne nangam moom du farata sunna rekk la l'islam kenn waru cee xeeb dara waaye sunna bii moom sunna la boo xam ne ëmbaale na farata yi ndax mooy doxiinu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci diine ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jàppe woon diine ak ñi nga xam ne ñoo nañu jàppe woon diine ci seeni fas-fas yañ yoroon seen jëf yañ daan jëf ci diine seen wax yañ daan wax loolu lépp moo tudd baatu sunna ndax sunna aw yoon aw doxiin lay firi looloo tax bu jëkkoon salafu saaleh muy mag ñi jiitu woon ci lislaam liñ daan de sunna mooy loo xam ne ëmb na loolu lépp lañ daan tudde sunna mbokk julli topp sunna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak jàpp ci yoon wi nga xam ne ña jiitu woon di saxaaba ak ña topp ci ñoom noonañu lañu sóoba woon yoonu lislaam loolu mooy saafara jàngoro yi nga xam ne moo nekk ci xol yi nekk ci biir société yi waaye mooy dindi mboolem ñaawteef yi mooy wàcce barke yi ak yiw yi jàpp ci sunu yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mooy tax nit ñi mën a daje nit ñi mën a ànd mën a sori lépp loo xam ne ay wuute la ak i juyoo mooy tax itam xol yi mën a soppante mooy tax yéene yi mën a déggoo jàpp ci sunu yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ci la ñuy amee ndam ci kaw noon yi nga xam ne noon yi dëgg lañ jullit ñi ngir ñu mën a am ci ñoom ndam day fekk ñu moy ci lislaam ndax boroom bi ka daf ne wa kaana xaqan alaynaa nasrul muminin man yàlla day yeyal naa ci sama bopp ne faw danaa dimbali waaye nag ñi gëm yàlla te ñu gëm yàlla mooy ñi jaar fi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jaaroon mbokki julli topp su ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam li ci nekk ci ay ngëneel kenn mënu ko lim mënee su ko takk la ci jiitu mooy topp yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mooy topp yàlla suñ borom ferdli nako ci aya yu bari neena na man yuti ar rasul faqad ata allah ku top yonnte bi sallallahu alayhi wasallam top nga yàlla ñaareel ba top yonnte bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ci taxe nek ëlëk al-akhirah suñu borom tabaraka taala def top yonnte bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam muy sababu duggu al-janna waye sax sabab bo xamne dañuy yëkëti koku don top yonnte bi ci daraaje ye gëna kawe ci bir al-janna borom bi ne waman man yuti illah wa rasul فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا نينا كتب يا الله كم ينتم ألق دي كوكي دانا أنك ني الله باخي ني الله دي فالخيول تموي لول ني نيان تي فاتيا نان صراط الذين أنعمت عليهم يالا الله تك ني تي يونو نيغا باخي دي فالين خيول مو نكو تب ينتم صلى الله عليه وسلم دي يا الله دانا لبوالي تي نيوني نيوني موي نيان موي ينتم mooy siddiqoon yi nga xam ne dañuy dëggal bu ñu déggee dëgg rek dëggal ko mooy suhadaa yi mooy ñi nga xam ne dañoo ñàkk seen bakkan ci lislaam mooy nag mbooleem ñu baax ñi suñ boroom ne ñu day kuñ doon sa àndandoo am nga àndandoo bu baax ñetteel ba topp ñu sunna yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ci la nit ki amee yërmande yi suñu boroom tabaraka wa taala ak ngërëmam borom bi ne wa man yuti illaha wa rasulahu wa yaxsha allaha wa yattaqihi fa ulaika humul faizun ku top yàlla ku yonentam ragal yàlla di ku lépp lo xamne lu koy ak merum suñu borom la ñoñe ñoy texe bu ëllëgé borom bi da la wax wa man yuti illaha wa rasulahu faqad faasa fawsan azima kuy top yàlla ku yonentam ki day taxé na taxé go xamne gu mag la nek na ci top sunna yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mucc ak aaru ndax kat ay nusuus yu bari muy ay tektal yu bari dik na ci alquran ak sunna di leeral ne jàpp ci téere bi yàlla bi ak ci sunna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci ñaar yooyu rek la ak ci nekk borom bi ne wa atiu llaha wa rasulahu wala tanaasaru fa tafshalu wa tadhaba rixukum wasbiru inna allaha maa sabirin mu ne topp leen yàllaa ko yonentam te bu leen xëccoo bu leen juyoo te xëccoo la koy andi mooy ñu andi leneen kenn ku ne andi sa mbirum bopp di wane ne yaa gën le di wane ne yaa gën a baax le waaye su fekkee ñépp jàpp nañ ci li ci fekkoon boobaa ak déggoo rek mooy am topp sunna yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mooy yoon wi nga xam ne ci la ñu mën a mucce ci ak juuyoo ak wuute gi nga xam ne lislaam daf ko bañ lool jël nañ ci abdullah ibni omar radiallahu anhuma yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ne banu israil teqalikoo woon nañ juróom-ñaar fukki yoon ak ñaar sama xeet yi danañ teqalikoo juróom-ñaar fukki yoon ak ñett yoon yépp sawara la ñuy dem ba mu des benn ñu ne ko benn boobee di mucc mooy ban mu ne ñi nekk ci li ma nekk maag samay saxaaba maa ana alayhi wa asxaabi kon nag loola moo jër gëstu moo jër a xam ndax loolu rek lañ lay laaj bu ëllëgee ci xadis boobu yonente bi sallallahu alayhi wasallam leeral na ci ne taqoo sunnaam ci la nit ki di mën a muccee ci kuréel yu bari yi nga xam ne fu mu toll mi ngi sosu di yokk rek di dem di sosu benn kuréel bu nekk day mujj juraat yeneen kuréel yu baree baree baree bari te kuréel yooyu yëpp nag suñu borom tëkkoo ne leen safara Bam dess ben moy bi yonente bi sallallahu alayhi wasallam nekkon ak i saxaabaam ndax lolay diine lolay la borom bi de geureum na waraditu lakumul islam diina geureumal na len l'islam muy sen diine borom bi bind ay jaamam wacce diinem yabal ab yonentam wacce ab terem na jaamo len ma ni ay nit ñëw fent leneen lu ak lola di tere sax nit ñi di xeebloo nit ñi lolu borom bi tabaraka taala wacce won ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam di wane ne liñ andi moo gën loolu wax dëgg yàlla dara gën ko nekk ak tooñ waaye ku koy wuyu itam di fi nangoo bàyyi yàlla mi la bind xéewalal la wërsëgal la nar laa rey bu ëllëgee bu ëllëgee ñooñu la doon sànq ñëpp dootu leen gisati loola kat bu boobaa boo nangoo wuyu ñooñu nga xam ne ngeen fee daje rek bàyyi li nga xam ne moom la la borom bi tabaaraka ko taala mi la bind nga nar a dajeeg moom ëllëg li mu la digal lool lu ko gën a nekk ak ndof lu ko gën a nekk ak ñàkk fayda ci àdduna amul forada bu ngeen may dikel kenn par kenn ngeen di ñëwaat kama khalaqnakum awwala marra loolu nak kon nañ ci bàyyi xel bu baax a baax yonente bi sallallahu alayhi wasallam bokku na ci mujjuk ay dénkaaneem ca xutba ba nga xam ne ca la doon xutba ca ak gam mujj aj te ak googu sax la masa aj waaye mooy ak yi nga xam ne ci la tàggoo jaam ñi ndax ci lañ ko mujjee gisee ci mbooloo mu tol noonu mu ne leen ya ayuha naas yéen nit ñi bàyyi naa fi yéen ñaari mbir yoo xam ne su ngeen ci jafandoo du ngeen sànku mukk muy téere yàlla bi ak sunna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nit ñi bu ñu dëgëroon foofu ñooñu di fent ak di andi leneen dañ gaaw a randu waaye liñ leen dul laaj moo tax ku ci andi dara andi lu bees ñu la la loolu wax nu fu mu nekk ci alquran wax ñu fu mu nekk ci sunna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ñu fu ko saxaaba yi a dunde ak taabion yi xanaa ñooñu mënoo wax ne yaa leen gën a dégg alquran ak sunna ñi ko doon jële ci yonente bi sallallahu alayhi yaron nabi sallallahu alaihi wasallam ne man day jéejoo wonna lol gis samay mbokk sahaba yi ne ko ah mun dañ dënduy say mbokk mu ne déet yéen samay àndandoo géen waye samay mbokk ñewaguñu ñoñe nak ma leen di jitu ci ca deg ba laa leen di xaar mooy mbooleem ñi ñew gannaaw bi gannaaw bu mu fi joge ñu juddu top yoon bi mu jaaroon ñoñu la wax leen ñoy ay mbokkam mu ne leen moom ma nga leen di xaar ci degam ba ñu ne ko yaa rasulallah naka ngay mën a xame ñooñu nga xam ne sa gannaaw lañ fi ñëw noo leen di xàmmee mu leen waaw bu ngeen gisoon waa joo xam ne dafa am fas woo xam ne dafa jëb ñeenti tànk ya am ay weex-weex jëb a weex mu ne ci biir fas yoo xam ne nag moom dañu ñuul kukk amuñu dara lu weex ndax dala dana xàmmee fasam su ko séenee ci fas yooyu ñu ne ko waaw waaw dana ko xàmmee kay mu ne nag yéen ñi nga xam ne sama xeet ngeen bu jowmal xeabee bu ngeen di ñëw da ngeen di ne mel ne ku jëbb maanaam seen cati loxo yi ak seen cati tànk yi ak seen jë day leer mu ne loolu la ko waral mooy njàpp mi ngeen daan jàpp njàpp mi ngeen daan jàpp mooy leeral seen tànk yi leeral seen loxo yi leeral seen jëy yi comme fas wu jëbbu ñeent tànk ni muy mel nee na bu boobaa nag ci loolu la leen di xam ne mu ne dana am nag ñoo xam ne danañ ba ñëw ba jub ko malaaka yi di leen daq di leen daq mu ne leen bàyyi leen leen ñooñu sama xel lañ bokk ñu ne ko ñooñu xamoo lu ñu sensé sa gannaaw ci sa diine ji diine ji nga andi woon dañ ko soppi moo tax kon bokkatuñ ci yow yonente bi sallallahu alayhi ne nañ sori nañ sori nañ sori kon gannaaw soppi nañ li ma fi bàyyi woon ci leneen lañ jaaroon ay nit fentaloon na leen yeneen i yoon ñu jaar ca ba bàyyi yoon bi ma leen rëddaloon kon ñooñu dañ ma sori lool bu baax moom la borom inna allasina farraqu diinahum wa kaanu siyaan lasta minhum fi shay innama amruhum ila allah suñ borom ne yonente bi sallallahu alayhi ñi taqale diine ji diine ji jenn la woon ni ko takale nak ay patch patch patch lo wax ñu ne mom ci kuréel sangam la bok barap sangam la bok kanu siya mu ne ko ñooñ jotté tok ñom dar lasta minhum fi shay seen bir nak ci yalla lay delu directement ndax yalla mom mom ñep mo bind ñep yow ñi nga amal affaire moy ñi la nangu woon a yonent bu ne ñam amal affaire moy ñi ko nga wona top waye kep ko xamne to boko won ko seppul ak yow dar yalla mala bindon ngay sekkal directement mbokk yi kon kep ko xamne yaangi yaa gis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu ëllëgee ànd ak moom ca biir aljanna yoon wenn rek la gëstul sunnaam ba xam ko looy def lu ne laajal nii lu ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon defee lii lu ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax suñ la ko waxee nga góorgóorlu ci ak lu mu wuute wuuteeg li nit ñi xam ndax nit ñi moom da ngeen a daje fii rek léegi ngeen tàqali ko mu ngi mel ne ka nga dajal marché ba ngay jënd loo xam ne bëgg ko jënd bu naa leen li ngay jënd baaxul te yow nga ba xam ne moo baax jëndal rek dem sa kër ñibbi fa nga koy jariñoo ji moom du ko fekk waaye su la yebbee ba ne li ngay jënd baaxut ba jënd loola moom la muy jënd moom te fekk loola baaxut kat bu ëllëgee musiba lay doon ci yow mbokk yi ku ne xam na ni xërëm yi du jëriñ bal day lor waaye boo seetloo yéefar yi démb ay xërëm lañu yoroon yu ñu yattal seen bopp defar ko muy ay xeer ay bant yu ñu yett teg ko di ca jaamu amoon ci xërëm bu gën a mag mu tuddoon hubal la kon nit moo yett yàllaam di ko jaam nit moo yett yàllaam di ko jaam waaye am na koo xam ni nit moo tànn moroomu nitam def ko yàlla di ko jaamu amaan na sax ki mu tànn def ko yàlla di ko jaamu kooku yëgu ko walla bëggu ko waaye moom suwaam la mu tànn moom ne Saalix Fay la tànn di ko jaamu libre na ci ndax kenn ku nekk borom bi li mu jàngale wax ñu wax ko buñ ko waxee kenn ku nekk loo defati yow la engagé li tax mu engagé la mooy booy dugg bàmmeel doo ànd ak kenn yow rek yaay dem booy dem examen <laughs> yow dong yaay dem kenn du la fa fekk xërëmu bant bi du la fa fekk xërëmu xeer bi du la fa fekk waaye xërëmu nit ki du la fa fekk te bi ñu gënoon a yaakaar mooy xërëmu nit war na la faa mën a fekk ndax moom nga ne woon yow laa yaakaar moom nga joxoon sa bëgg-bëgg moo la doon digal ngay def mu lay tere ngay bàyyi moom nga ni woon yaa may dugal ajjana yaa may yóbbu ajjana yaa may defal nangam tey nga dee ñu lay suul mu taxaw ñu woo ko mu ñëw bu dee ku baax mu ñëw ndax jaral nga ko ko waaye bu dee koo xam ni dund la buñ ko wooyee ne ko diw dee na ma ah toppatoo leen ko suul ñu toppatoo ko suul bu dee ku la féete woon fenn nekk jàmbaar soo ko jegee dëgg dina ñëw ci dëj bi gis nga bu ñëwee bañ ne ko yaay kilifaam jullee ko keroog lay njëkk a daw responsabilité am moom mi nga xam ni moom nga moom nga yaakaar ñépp xaar ko ba mu ñëw keroog lay daw responsabilité am keroog xam nga luy daw responsabilité yi dañ ko naan jullee ko sang nañ la toppatoo la sang la jabar yaa nga fële di tënj doom yaa ngi fii di jooy doom yu góor yu mag yaa ngi taxaw te naan seen papa diw rek moo nekkoon waayam diw ñëw diw taxaw ñu ne ko julleeku diw sax ñemewu laa laal day taxaw ca sa wetu mbagg tegu la tànk tegu la loxo kii lay wax kii jaamu yàlla bi tëdd te yow mi tëdd da ne woon mooy sa waay lan moo tax mu commencé daw xamnañ ki la teural fi mo mën lépp te xamnañ fi nga teud mom dana fi teud motax mu commencé daw responsabilité jàngal li muy wax ci julli bi nga yek ni daw na responsabilité allahumma innahu abduk day wax yàlla ke teud sama jam sa jam la sa jam pare na ci newol allahumma innahu abdi waxu ko de pourtant loo am yëkkati jox ko soo bayee jox ko soo góobee jox ko bu xewlee nga jox ko su ngeen dajee ci oto nga wàcc su ngeen toogee ci mbooloo nga toog ci suuf su seet bi dee benn moom mu toog ci su waxee nga ni waaw su nee déet nga ni déet lu mu wax nga wax tey mu ñëw ne fu mu lu muy wax nit ñi sama taalibe toujours moom lay wax saalix sama taalibe sama nangam لتخ صالح جنة عدنا نول اللهم إنه طالبي وقل اللهم إنه عبدي يدفعني اللهم إنه عبدي تخول البعض بدو يرم لكو يوخي ورغا يكني دون رسپونسابلتي وابن عبدك وابن أمتك كان يشهد أن لا إله إلا الله دانا سيدي ني يو يا الله allahuma in kaana muhsinan fajid fi ihsaanihi yàlla bu dee kee tëdd di sa jaam doon na def lu baax xaw ma ko de dollil ko fajid fi ihsaanihi wa in kaana musian yàlla bu dee dala doon tooñ guddeeg bëccëg nga xam ko xaw ma ko faghfir lahu waa kii daw responsabilité kii boo nee da ngay xaar mu dimbale la ci bàmmeel du sotti boo nee da ngay xaar yowmal qiyaam mu ñëw du sotti موتاخ القران وخلو ام صلو في سوره الاعراف ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم الله اكبر القران بقي سني كو تايلو رك دينا ام خم فين جا بروم بي ني نيغي دي جام تا دي ني يالا اي جام لا ان الذين تدعون من دون الله عباد amsaalukum ñoom ñépp ay jaam lañu comme yéen yow yaa bañ jaam bi rek naan nangam la nangam la waaye jaam la de moom xam na ni jaam la moo tax borom bi ne inna allazina tad'uuna min dunillahi ibadun amsalukum ñi ngeen di duñu yàlla yàlla nee na ay jaam lañu comme yéen léegi nag ñoom dee nañ am ngeen ci ñoom yaakaar yàlla nee ne fad'uuhum fal yastajibu lakum in kuntum sadiqin du nee ngeen ñoom ñooy gaay yi ñoo leen gérer fii gérer leen fële dee nañu ñaan leen ñaan leen soxla ndax dinañ leen ko fajal tey lan ngay gis li lay wan ni jaamu dafa doy waar nit di nga topp sa kilifa ba mu génn àdduna nga di ko ñaan soxla xanaa sax bi mu dee nga dem ci doomam ñaan ko soxla moo gën waaye mi ngi dund nga dugg ñëw ba ci bàmmeelam naan ko dama bëgg soxla yi nga fajal ñu ko yaa ko mën yaay nangam yaay waaja yaay nangam wax wax ba doyal dafa am benn xissa bu reelu soriwut dara benn waay dafa ñëw ci bàmmeelu benn kilifa bi mu duggee ci bàmmeel bi am na benn dof mi ngi tëdd dof mi ngi tëdd moom ak sagaram di waxtu waa ji dugg tàllal loxoom naan ko sëriñ bi ñëwal yàgg ngaa ñëw soxla su moom yaa koy faj yaay nangam def nii loxoom yàlla dafa ni ñaanal ko bu ko ñaan ki ñuy ñaan du kuy dee ku dee kenn war koo ñaan mu taxaw di ko ñaan sama jabar day matu ma nga hôpital jaaxle naa sëñ bi ñëwal te bul yónnee dof bi ne bërët jóg taxaw ñoo ne ko papa mu ne naa mu ne ko sëriñ bi daa am ko accidenté ñu woo ko mu dem di ko dimbale su ñëwee doog laa mu ne ko yow dof bi mu ne ko ku la gën a dof yow mi ñaan ko de <laughs> dof moo ko wax loolu waaw mu naan sëriñ bi ñëwal te bul yónnee soxna si ma ngay matu daa jaaxle nangam nangam dof bi ne bërët ne ko dafa am ku accidenté ñu woo ko fa la dem pour dimbali ko bu ñëwee dimbale sa waaju ne ko yow dof bi lay wax ni mu ne ko ku la gën a dof yow mi ñaan ku dee wala dof tey tànn na nit ku la gën a dof yow mi ñaan ku dee yi borom bi nee na fad'uuhum ñaan leen leen ñoom it waaye fal yastajibu lakum ci àdduna sax danga koy ñaan du la may ci àdduna da ngay am soxla mënu ko faj ndax moom soxlaam ci yow la ko wéer te nee nga moo la garanti moom ki nga ne mooy sa waay soxlaam ci yow la ko teg sa mbay la yaakaar sa poos la yaakaar li nga kon kay yaa ko gën a tedd léegi nag nga nangu suufee loolu lépp teg ko te naan ko yaay waaje boo ko koy jox sax da nga koy ngandal lii kay xeet naa ko lool moom mu naan na ñëw rek balaa dara mën na agsi rek na agsi rek boo ko ko joxee ba mu dégg wax ko dégg de du ma sax moo am de ndax toog naa nga liggéeyal ma mbokk yi kon alquran dafa ñëw pour yéen jullit yàllaa yor ndimbal kenn yoru ko alquran ne walladina tad'uuna min duni illah laa yastatiuuna nasrakum wala anfusahum yansaruun ñi ngeen duñu yàlla mënuñoo dimbale seen bopp mënuñoo dimbale keneen kon mbokk yi yonent bi ku yëkkati woon mbiru tawxiid la ndax xam na ni tawxiid moo lay tax a nekk nit moo tax suñu borom mu ni qul id'u lladina daamtum woo leen ñi nga xam ne yéen a ngi yaakaar ni min dunillahi walis yàlla foog ni am na luñ man am na luñ sañ woo leen leen ñaan leen leen yaakaar leen leen fala yamlikuuna ñooñu mënuñu kasfa durri ankum musiba ji wadd ci sa kaw wallahi yàlla neen mënuñu koo yëkkati wala taxwiila mënuñu koo suppi ci kii yóbbu ko ca kee ak ku mën a doon ci doomu aadama yi déglu leen nii waxi suñu borom la yàlla subhanahu wa taala yàlla mu ni mboolem ku ñuy yaakaar di ko jox cërëb suñu borom fala yamlikuuna mënuñu kasfa durri musiba ji tege ci sa kaw feebar bi ñàkk gi ayib gi mënuñu koo teggi wala taxwiilan mënuñu koo toxal yóbbu ko ci feneen te ulaayika sax lu ngeen ci xamul mooy ulaayika ñooñee alladina ñi nga xam ne yaduuna yéen a ngi leen di jaabo di leen jox cërëb suñu borom yabtaxuuna ñoom ña ngay jéem a sàkk ila rabbihimul wasiila lu leen jokkale ci seen borom mufassiru yi nee nañ aaya ji mi ngi wàccoon ci ay nit yoo xam ne dañ doon def ay tawassul ci ay jinne ci ay jinne maanaam daal xam ngeen gis ngeen ci suratul jinni wa annahu kaana rijalu min al insi ya'uzu bi da ngay ñëw ba ci xur wi nga ne ah yow mi nga xam ne yaay sangu xur wi man bàyyi diw doomi diw ak diw dëkk ci dëkk bii maay làqatu ci seen ginnaaw ngeen aar ma aaraal ma sama njaboot maa ngi dugg nag daa di dugg su ko defee jinne yi ñoom it gann ñu commencé na ci gann gandalu noonu lañ doon jàppee ay jinne ci leen jaamu foofu nag jinne ya tuub dugg ci lislaam ñoom di jaamu yàlla ñoom yàlla mu ni subhanahu wa ñoo ñooñu ngeen di yaakaar yabtaguuna ila rabbihimul wasila ñoom ña ngay def ay jaamu yàlla yu gën a jegale seen borom yéen ginaan yéen ñoom ngeen di am na ñu ni mi ngi wàcce Isa ñooñu nga xam ni ay malaaka ay malaaka wala Isa wala Uzayr ñooñu ñuy jaamu di leen def yàlla ñoom ña ngay def ay jaamu yu tax mi jege seen borom ñoom moo tax gis nga koo fi yaakaar ni moom cërëb yàlla moom la am wallahi kooku bu wéetee bu dee nit la moom yabtaxuna ila rabbihimul wasila mooy nekk problème mooy moom nu mu def ba jege yàlla moom sunu borom mu ni ayyukum aqrab waaw ñii kan moo ci gën a jege sunu borom wa yarjuuna rahmatahu te ñooña ña ngay yaakaar yërmandey sunu borom wa yaxaafuuna adabahu ña ngay tiit ak mbugalam yow moom yaa ko ngoy ci nit ki rek jàpp ko ci moom moo lay defe naa gis ngeen jamono ci xeeti njaaxum yii ngeen di gis dafa mel ni daanaka yëf yi kenn xamut daanaka lan la njaaxum boo dégg rek bu subaa nga dégg njaaxum ko ko gën a rëy yéen xam ngeen ni ba àdduna sosoo ba tey xeeti wax yi ngeen dégg nii Firawna na waxu ko woon man fan yi damaa toog ba mu yàgg ma ni man di gëm naa ni Firawna fa mu nekk ci mbugal ku ko dekkaloon may ko tuuti sago bañ koo mbugal ni ko am na ko wax nangam ci sa gannaaw danañ la dëgg parce que Firawna jàppoon na ni moom fa mu wax fa wax ana rabbukumul aala waaye nag man maa bind yàlla ak man maa nangam loolu moom Firawna xalaatu ko woon a wax wax dëgg yàlla motax damay wax ni firawna li muy tay tay tay saay am na yemukaay nag saay saayam gi am na yemukaay ben way lay deg mu wax wax ju am solo muni ni ba firawna waxe ana rabbukumul aala ba tey mësuñoo deg min rew ku fa wax wax ju ñaawé ji wax ji ñu wax sénégal wallahi wax deug analyse bu am solo la def ba firawna waxe ana rabbukum al a'la batay deg guñ ci aduna bi kuy wax lu bon di wax lu bon ba wax lu melni liñ wax suñ rew mi rek lañ ko mës déggé motax suñu borom mu ni inna adaba rabbika sa mbugalum borom yàlla day kaana mahduran dafa nekk lu ñuy wattandikulu da nga ko war a wattandiku foo man tey di sàkku sa njaboot di wattandiku yàlla mu ni wa in min qaryatin amul benn dëkk nag ci dëkki tooñkat yi amul benn dëkk ci dëkk yi jalgatee ka wax naka sudut noonu ak di ko def illa nahnu lu dul nun yàlla muhlikuha danañ ko alak qabla yawm alqiyama balaa yawm alqiyama amul sax werante tuub mbaa alku rek koo gis mu fetteerlu dëkk boo gis nit ña fetteerlu sunu borom yàlla mu ni balaa adduna bi tukki dinaa leen alak ngeen fekki ngeen bañ a fekkee ci xanaa tuub tuub rek mooy tee alak bi mu ñëw aw wala boog muadibuha danañ leen mbugal adaban shadidan mbugal mu méttee métti kaana dalika loolu di nekk na fil kitaabi ci téeréet jëf jëf sew lawxil mahfuz mastuuran di nekk lu ñu xaatim lu ñu fa